ko rek mu nekk pada gi kese ma daal di jël kooku noonu nuyu ko naan hello asalaamaaleykum. allo waaw ko kan la. maa ngi lay. sa ñaw bi rek laa bëggoon dama bëggoon nga taxaw rek ma xool sa ñaw. waa dinaa jóg si kanam tuuti. waaw ah, baax <laughs> di ah. bëggee kooku noonu bu baax a baax a baax di ko wax ne rek ne ko su demee si kii nga xam ne mooy FGM Faye rek foofu noonu shop pipeline am American Embassy bi rek dina dina gis ñaw bi foofu noonu su ko defee FGM Faye na ko ko ñawal sista F moom suma sista la bu baax a baax a baax waaye yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan saa su nekk dama am bégte ak kontaante su ma fi toogee ngir la la tax ma di fi toog mooy ne dama leen di wax ne lu waañ bi tànga tànga foog ma àndaa yéen ci biir waañ bi seet nekk ci biir waañ bi amaana keneen ku nekk ci line bi dama koo jël nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum hello hello asalaamaaleykum ah, alhamdulilah kontaan naa ci jërëjëf man nag la gom loolu waaye la soo ko mënu teere bàyyil nii laa gis ah, ku ko fi defati ma alamaan la waa jërëjëf all right <laughs> jéegi Gambia wax naa leen ne jeeg ñi ku nekk danga am sa fe ma ne yéen yéen a soo gisee jigéen di génn kër yaayam di sëy dafa soo gisee mu war a def rek dafa war a def rek saala booy nay waxante dëgg da nga war a def rek am sa ay feem génnee waaye bàyyi padange kese nii rek di ko xool dama ne maa bañ duma ko nangu yéen dama bëgg ngeen dal di def ba mbaa ni ngeen di defee ci biir waañ bi looloo ma neex bi damaa dal di jëlaat ko noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum allo allo waaw ko la yaa ngi ne jërëjëf yow kan la noonu man la Fatmata Fatmata ci loo nekk ah dara rek Fatmata de jéem a la ci dara tey lan nga jàng ci tooga bi ah neex rek mbaa bàyyi nga padangi kese. waaw. bul defati maalo kese noonu de te defuloo ci sa ay ay kurti karta. waaw waaw. <laughs> jërëjëf jërëjëf. sa affaire neex na ma trop dama naay. waaye ma ne góor góorul rek fogu leen ko. bëggee ñooñu bu baax a baax a baax ni ma leen ko dee faral a tax ñu di fi toog wax naa leen ne askan bi ñun ñooy bëti réew mi ñun dañ war a dal def rek ba mu baax waaye naka la ñoo defee ba mu baax mooy lu waañ bi tàng-tàng foog ma àndaa yéen ci biir waañ bi dugga ci biir waañ bi seet li nekk ci biir waañ waaye dama leen koo indil moo tey ma ne leen fi mu nii maak nañ ex li nga xam ne jël padaŋi kese rek teg ko wax naa leen maalo kese bi noonu nga teg ko nii di ko yëy ndanka ndanka rek doo ci am dara lu la cee naxari ndax saf na li mu war a safee li ci war a dem yëpp dem na ci waaye ay la nekk ca yàpp ga tamit am na solo lool ba tax na dama leen di wane leen ne la ñuy lakka balaa ngaa lakka yàpp steam ko waaye jël yàpp ma rek jënd ko noonu rek ñëw rek ni ko bécca ne ne dama afra déedéet xewatut jeg ñi ne leen koy steam cafka ga ca nekk yëpp steam koy pare fekk yaa nga desal lu tuuti soo ci jógee pare laalaat ko ci sa ko ci loo hit bu fay xal yi bari su xal yi bari rek loxoom te loxoom du neex a lekka ma dal di jël kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum. hello. asalaamaaleykum. hello. maa ngi laa dégg waaye foog nga wàññi sa volume télévision bi. hello di wax ne leen mi képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi ñu ngi jégalu rek nga dee wàññi sa valeur bi télévision bi soo ko defee rek dina ñu neex lool waaye nag plate bi dama ko yëkkal am suma benn goro koo xam ne oncle Matar Jeng mu ngi nekk foofu noonu bu baax a baax a baax di wax de plate bi yow laa ko yëkkal mais fàttewuma ci suma cousin bro di Ibu Mbuub nekk foofu noonu ñu naan ko Ibu Tan nekk foofu noonu ca Stockholm baaye ba tax na nag yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan bégte ak kontaante rek lay am ba tax na jëlaat kooku noonu ci line bi allo asalaamaaleykum. allo naam. booy nama naa la. waaye kon nama nama na la. yaa dama góorgóorlu teel a taxale rek. dama la bëgg ci sama xol yi a liggéey ma. waaye déedéet defal liggéey bi de. non du ma liggéey man yaa ma jaral liggéey bi barke sëñ Tuuba Mbàkke man su ma la dee gis rek damay. eh waay waay waay rëy na rëy na kontaan waaye maam bëgg ko bëgg bëgg la bëgg la trop bëgg la trop Gum naa loolu gum naa ko ci yal na la yàlla jàppale allahumma amin allahumma amin li nga bëgg ci sa xol bi yal na la ko yàlla may allahumma amin ñun ñëpp ñu man nag su <laughs> man bëgg ci sama xol bi na na suma <laughs> waaye loolu dina dina neex na neex na lool neex na lool ñoom Ibrahima Sala nañ nañ gaaw rek salaire yi moom buñ ko jotee rek nañ ko paak tegee ko boor ak ñoom Sirifo waaye Sirifo mu ne jamono ji loo déggee rek takka jabar ba tax na xam naa ne bés bi mu ñoo njëkk a invite lunch moom ci kër gi moom xam naa miss bi suñ jabar moom bii laa njëkk a def ma daal di jël kooku noonu ci laan bi ñu ko naan ko hello asalaamaaleykum hello allo hello am dafa mel ni kooku moom déggantewu maa moom bu baax waaye di bëggee ñëpp ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan waaye Anta Hadi Sané nekk foofu noonu ca Atlanta moom itam su programme bi jotee rek dafa bàyyi soxlaam yëpp di ñu seetaan Anta Hadi Sané maa ngi la bëggee bu baax a baax a baax waaye fàttewu ma si suma stress free groupe bi yëpp ñoom bom si gaal fàttewu ma si suma xarit di suma soppe di ajaratu am aji jey Njaay ma di ko bëggee Anta Umi Fane maa ngi la bëggee bu baax a baax a baax ñoom ñëpp nekk foofu noonu ca Atlanta Adam Mbodj Adam Mbodj maa ngi la bëggee bu baax a baax a saa su nekk dama bëggee ñoom maam Mariam Diallo Fatuma Siyama Diallo ñëpp ma di leen bëggee bu baax a baax a baax ñëpp nekk foofu noonu ca Atlanta waaye li ma def rek mooy sas naka mbégte ak kontaante laa fee toogee yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan na dafa am foo leen toolu ci ba tax na tey gis ngeen li nga xam ne tey moom la awa caam tooga mu nekk tooga boo xam ne ni tooga bu am solo la waaye ma dal di jël kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum. hello maam ji. waaw ku la noonu. ah rek lekk. waaye ma ne nii rek la mun a ket si yow <laughs> la <laughs> dégg la wante benn si ne xar bii waaye yaasa ko mun a tooga yaasa yaapi harra ji awooy rek ko mun a tooga o a orut de kenn mënu bomba <laughs> ma ne jox ma kii wax noonu gi wax xamul lu baax. joolaa la xamul lu baax lu ne xamu ko moom nag moom gisin la xam bu basarenka bu lekki joolaay. waaw waaw yow tey naka nga gisee tooga bi yaasa bi. laa ilaaha illallaah loo yaasa bi lu ne la waaye ma ne invite ma dimanche. toogal rek invite ma dimanche. mooy invite la waaw. <laughs> ah moom ngay bi bi bi metti na de. <laughs> moom yaa jël na ko war a jël mu dem toogali ji ko. <laughs> ñaata bi na. ah bii ko laaj na torop tooga bi interesting na torop. wax dëgg ngeen na yàlla yiw na te a dagan na. waaw noonu lañ ko doxalee rek moo ko rek. <laughs> tegal ko si njaram soow rek. Mhm. mu naan. xam nga man yéen. nga am si tiyaabo bu bari sax. xam nga man jéggi Gambia. li ma neex si ah. yéen mooy da ngeen bari feem. ku nekkaa sa own size la ñi lee nga size forty one ñi lee nga size hundred jox naa ñeneen ñi two hundred because yéen because yéen da ngeen di weeseen da ngeen di weeseen boppa ah. yéen da ngeen di weeseen boppa ba seet foo leen toolu waaye kontaan naa kontaan naa nga nuyul ma ko bu baax a baax a baax maam yooyu maa kontaan sa ñaw bi ku la defar. waaw doon jeexal na loxoom ci yow. di laa yaara set yàlla bu la cat li nga bëgg yàlla la ko yaara defar. yàlla na la yaara yàggal sa liggéey gi. yaara suturaal la. sutura bu ànd a bànneex. di laa yaara set. di laa kaar yaara set. jërëjëf maam Ndiaye maa sa gannaaw. di xarit nit ñi maam Ndiaye. yal na la fi yàlla yàggal dina gis rek góor bu set ci télé gi. ngay def ba mu bu set ngay génnee feem yu neex. <laughs> boo génnee rek nekkam yëpp toj billahi yaa <laughs> yaa rafet waaye di bëggee kooku nag bu baax a baax a baax a nekk rek réewi Gambie ñun suñ fi toogee rek yéen a dee tax ñu toog fi mbégte ak kontaante rek lañoo nekkee fii nii ba na yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan saa su nekk suñ fi toogee rek dañoo dal di def rek ba mu baax di bëggee nag ñëpp ñi nga xam ne ñooñu dee seetaan ndax saa su nekk suñ leen ko waxee yéen dafa am foo leen toll ci ñun ba na yéen fi ngeen toll ci ñun nu ko raw leen tolloo ci yéen ñaan fan ak wér rek loolu rek la ñoo ñaan saa su nekk suñ fi toogee ba tey na tey gis ngeen li nga xam ne moom la Awa Caam tooga Awa Caam tooga na tooga boo xam ne tubaab fa kàllaa macha allah tooga bu am solo la ndax gis ngeen ne li nga lim tooga dafa am solo muy lan ñu ne yaasa yàppi gis ngeen li nga xam ne moom la